suñu jant jigéenu weer yaa ñu leeral yaa yonga cant kum fii joo yaa ko weeñ Mesdames et messieurs, retenez très bien une seule date, une seule destination. ñëwoon naa leen lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole déglul ma nettali la le 4 juin lay doon programme bu mag bo xamante ni bii les Linguères de Benno Bokk Yaakaar yi nekk ci Italie di ay jigéen yu am jom ñu fas amal journée de lancement officiel de la grande coalition Benno Bokk en Italie mani leen ñan ñooy seeni invité d'honneur ñu ma docteur Cheikh ministre d'État envoyé spécial du président de la République di doomu Fatick di ku président de la République nitu social ñu ak madame le ministre Aminata Touré tête de liste Benno Bokk Yaakaar jigéen ju mën di ci le président Macky Sall ñu ni ma honorable député Farbango, maire de Agnam di ku yàgg appelé jigéen ñi association yi ñu ni nag bis bi dinañ Mamadou Lamindou, consul général Milan monsieur Baye conseiller parti réumi, Maram mouvement Ali Ngouille Ndiaye Amina parti socialiste madame Dramé né Khady Fatou Dipon APR Oumounia Yesal, Amin Aminata responsable Réumi Italie Khady vice consul ambassade Sénégal Matindaou ou conseillère mbokk yi bis journée de lancement officiel de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar ñu di ko amal fële Italie le samedi le 4 juin 2022 dama ni bis bangoogu na ko ñëpp waaj bis la bu inédit soppe ak xarit yi rawatina les responsables yi le président Macky Sall ñu ngi waaj bis bu